jàngalekat akub étudiant waruñoo dem ci amphithéâtre yi di xalaat ay agression Macky Sall ni ragaluma ay combat ndax homme politique la waaye nag mesure yi moom faaw ñu jël ko xiiroo beeg ŋaayoo bi moom la danañ ko dakkal ci biir université yi ñi jël seen ay matukaay kay ba def ab liggéey bu am solo teg loxo lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci kilogramme cocaïne moo di waa marine nationale Vox Populi ne ab patrouille doon amal ci guddi dimanche jàpp altine ca la ñu jàppee ab cocaïne bu ñu dugal ci ab gaal jëlee ko ab dëkk bu ñu dendal li mu cocaïne bi nag bu ñu ko xaymaa ci suñu koppar toll na ci cent vingt bi di source a ab sénégalais ak ay ressortissants yu ñu ngi ci loxo yu yoon keneen ku nekk ci loxo yu yoon Ousmane Sonko ay avocat déposé nañu ab rabat d'arrêt loolee ñu bëgg bokk na ci ñu delloowaat ko ci liste électorale yi yéenekaay bi di Sud Quotidien ne lii moom ab sànni tàcc bu mujj la ci Ousmane Sonko avocat yi di xamle ci biir source a dëgg ci mbir yi maître Larifou di kenn ci avocat yi layool Ousmane Sonko ni ci jamono ji yeneeni candidat ña amal campagne di dagaan baatu askan wi mennum Ousmane Sonko rek la ñu xañ ay àqam ak yelleefam avocat bi di xamle ni nag coow li dina mitti dina yàgg waaye nag du bàyyi ndax bu ko laajee daañu dem sax ci yeneeni ëttu àttekaay yi gën a mag yër leen yëglekaay bi bés bi le jour dikk di fàttali rabadaxe bu Karim Meïssa Wade ak bu Khalifa Ababacar waaw rek ñu xam ne bokkub Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi dafay tënku rek ci rabadare bi ñu déposé niki tey jii Sénégal gu toog ci sawara loole nag la Cheikh Bamba Dièye xamle ci xëtu njëkk wu yéenekaay bii di wal Walf Quotidien moom candidat à la présidentielle bi ne Sénégal am na trois cent milliardaires yoo xam ne ñoom ñëpp ay fonctionnaires lañu mi ngi ko xamle ci page trois bu yëglekaay bi Alioune Sarr dib candidat ci élection yi ne fàng ci xëtu njëkk la témoin ne bés bu ñu ko falee fii ci réewu Sénégal ndaw lu am ñaar fukki at dana fexe ba nga am dëkkuwaay ba noppi nag benn njiitu réew dootul jiite conseil supérieur de la magistrature la tribune ne Babacar Diagne ana lu muy xaar ci waa soleil ginnaaw wal fajri bërki démb sàkku na ci waa des ñu daal di dakkal propagande bi ñuy nekkee moom njiital koret ndax dina def lu nu mel ak waa le soleil laaj boobee nag la yéenekaay bi xëy fësal ci xëtam bu njëkk Air Sénégal dernier plan de sauvetage l'observateur xëy fësal ko ci xëtam bu njëkk ne kilifa yi ña ngay waxtaan nag ngir xool nees ci mën a jëlee ay matukaay gis-gis bi expert yi am ci boobile compagnie yër leen yëglekaay bi le soleil